ñoo ngi leen di indil seen émission wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis muy suñ borom bu la defalee ay xéewal dee ko fàttaliku dee ko tudd dee ko sant dee ko waxtaane ñu war cee dalal nag suñu mbokk suñu kilifa suñu sëriñ El Hadj Maguette ñu gën koo xam ci Baye Maguette wala borom saret bi kon xam naa ngir bañ a guddal rek dañ koy bàyyi mu ñëw nuyoo incha allah ñu door a commencé asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحمد لله والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonant bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñoo ngi siyaare waa gurubu sako sàkku xam-xam ci diine di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal suñu bopp tey jégalu ci tardé gi ma tardé ma xat-xati jamono bi la rek maa ngi koy jégalu bu baax tey tuub di leen xamal ni kii wax ak yéen mooy Maguette Mbaye ca Rimini fas yéene def ak yéen ab émission bi ngeen ko invité woon tey mu fas ko yéene ànd ak yéen di leen siyaare bu baax tey am mbégte lool nag ci teew gi nga xamante ne teew naa ko fi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla ubbil ñu suñu dënd ak suñu xel bañu mëna fatali ko jaar-jaar yi ngeen koy laaj yépp ba mo man leen ko expliquer te no xamante yalla rek kay tax ak ak ak ak jëmi yonte bi ali salatu wassalam waaw ñu fas ko yene and ak yéen jërul ñuy guddal salatu wassalam ala man nabiyya ba'du assalamu alaykum wa rahmatullah waa Baye Maguette ñoo ngi nuyu baax baax di la ziar kon xamna suñu question bu ñëk rek moy kan mooy Baye Maguette manam fan la dëkk ci Sénégal ak eh, fan la nek jamono bi ak lan lay def lolou da bëgg nañ ko xam bala ñu dugg ci émission bi insha allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah alaykum elage omar sek ñu ngi lay siar yow itam bu baax te di la ñaanal jàmm diko ko ñaanal suñu bop tay sakku ci yow ak ñaan diko ñaanal wa groupe bi yépp waaw kan moy bay magget waaw bay magget de lu yomb xam la waaw man ma ngi tuddu magget Mbaye Bay magget nak turlo wo xamanteni ni gi ji bari nañu ma mat bàyyi sax nak waye bàyyi ji ci groupe bi groupe bi whatsapp yi lañ ma koy tuddé am na xamanteni borom saret bi lañ ma xamé ca bo démé fo xamanteni mom moom lañ naan xul ato burhanakum ma bàyyi magget mi ngi gané aduna ci benn dëkk bu ñuy wax khaymar khaymar ma nga nekk ca boori mexé sos ca ngaay nekk arrondissement de mewan département de tiwawan la gané aduna léegi ci jamono bii nag mi ngi nekk euh, dëkk bu ñuy waax Rimini ci itali def na fi fanweeri at ak benn ci ren moom métier ci Italie nag mooy chauffeuru camion la métier profession dëggantaan nag bi nekkan ci carte d'identité Sénégal mécanicien la man mécanicien mooy sama profession waaw di leen siyaare bu baax te leen di déglu di leen xaar. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Baye Maguette ñoo ngi lay sant bu baax macha allah kon loolu leer na. Euh, xam naa question bu njëkk bi mooy xam nañ ni senegal euh, ñi nga xamante ni si sa sa maas gi ak ñi la féete ndaw tuuti sax maanaam ñi nga xamante ni am nañ fanweeri at ak juróom jëm kaw ñoom ñëpp ci ay tariqa lañ juddoo loolu xam nañ ko euh, donte yow yëg nañ ni fi ne nii tembe yaa ngi jéem a dund sunna waye dañuy laaj bay magget ci ban tariqa la nekkoon njëkk muy e, gis li mu gis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa bay magget ñong lay sant bu baax sha allah kon lolu leer na e, xamna question bu njëkk bi moy xamnañ ni Senegal. E, ñi nga xamanteni ci si sa sa maas gi ak ñi la ndaw tuti sax. maanaam ñi nga xamante ne am nañ fanweeri at ak juróom jëm kaw ñoom ñëpp ci ay tariqa lañ juddoo loolu xam nañ ko euh, donte yow yëg nañ ni fi ne nii tembe yaa ngi jéem a dund euh, sunna waaye dañuy laaj Baye ci ban tariqa la nekkoon njëkk muy euh, gis lii mu gis nii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw Baye suñu benn question mooy yow tax tariqa boobu yow yaa ko tànnaloon sa bopp wala eh, nan la demee daal ndax da nga màgg tariqa Baay Faal neex la nga dem dugg ca wala da nga cee judd wala nu mu demee daal loolu bëgg nañ koo xam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala man laa nabiya barda waa El Hadj Omar Seck naan tarixa bi ma nekkoon maanaam dama cee juddu dama cee judd woon comme lu ëpp ci Sénégal li ñuy def tarixa li ñuy topp mooy dama cee judd woon daal tarixa la boo xam ne man dama cee judd waaw. alhamdulilah jërëjëf ci tontu yu leer yi xam naa beneen question bi mooy d'accord tarixa bi da nga cee judd waaye xam nañ ni tarixa yu mel ni tarixa Baye Fall boobu gone bu ci juddoo tamit dana am âge boo xam boo fa tolloo ci lañ lay yóbbu nga dem jébbalu ci ñi nga xamante ni yeneen tarixa yi tamit. amna na âge boo xam bo fa tollee ci ngay demee ñaané wér nde yow ci ban âge nga dem jébbulu ak manam sëñ djébal dal bëgg nañ mu leer dal bëgg nañ nga expliquer ñu kañ nga jébbulu ak naka nga jébbuloo ak ci ko jébbulu won lolu bëgg nañ ko xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala rasulillah wa alayka salam ila jomar sek ah waaw comme ni nga laaj moy man ci dama jébbulu won ak kañ la jébbulu won ak ci kan la jébbulu won waaw laaj nga ma laaj boo xam ne day fàttali na ma lu doy waar ndeysaan waaw man day ginnaaw bu ma ci juddoo dañ maa yóbbu ma jébbulu ji waaw ma dañ maa yóbbu ma jébbulu ji booba ay juróom ñaari at moom laay am waaw muy njóbbal gu metti sax goo xamante ni du ma ko fàtte mukk ndax dafa amoon ay xew-xew yu ca amoon waaw yoo xam ne ba daf may metti dañ maa yóbbu woon ma nekk xale dem jébbulu ji waaw ba ma ca ka ma jékkan ji ba mu faatoo ñu miraas taali ñu miraas ko ak ay soxnaam ak ay taalubeem ñu miraasa miraasaale ma rakkam ban séddalee miraas ma man rakkam lañ ma yóbbu ban nu miraasee nun taalube ci ma ab doo rakkam lañ ma féetaleel moom moo ma séddoo ma dem dem ci moom waaw te loolu te loolu moo ci yóbbu sama baay moo ma yóbbu ma jébbalu ji waaw boobu juróom ñaari at laa am waaw euh, alhamdulilah Baye Maguette ñoo ngi lay waaw xam naa loolu moom di nga ci ñu musal moom ndax euh, njëbbal ga daal ni nga ko waxee noonu reetaan noonu xam naa ne ñàkkul ni am na ay xew-xew yu ci xew yoo xamante ni bu fekkee daal luñ mën a nettali la ñoo ngi ñaan nga nettali ñu ko maanaam commencement bi daal ba à la fin naka nga jébbaloo yóbbu nga xew-xew yi ci xew yooyu yooyu daal bëgg nañ ko xam wax dëgg yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleyka salaam wa rahmatullah El Hadj Omar waaw man sama baay ci tasawuf la nekkoon nekkan ci kilifa gu mag ta sama bay sax ci khadir khadir la juddu man sama mam bi jur sama yaay sama bay, ab khadir la won sama bay wëñeeku dem nek nek ab bay fal jébbalu ci bay fal, wow, ndax man sama bay gisee naag Serigne Touba ak Cheikh ibrahim fek nako ci ndiar gem ndax man sama tiatum papa la bamay may gane sama bay amna na juróom benn fukki at bobu dëgër na keng nek magum tasawuf mu dëgër keng na ki tasawuf am ci ay privilège ñepp xam ko ci waw benn bis dal lañu xey rek mu ñu yeenu booba mi ngi yor ab sareet mu yeenu moom man ak ay sëtam ak ay ay doomi mm, rakkam waaw keroog bi ñu jëlee di ñu yóbbu ñu jébbalu ji fekk sëriñ bi dafa ñëwoon ci tund benn dëkk bu dend ak sunu sunu dëkk ñu dégg ko fa ñu war a dem pour jébbalu ji keroog bi ñu yee sax man damaa defoon dañuy dugali néegub góor ndax booba ay xale la nu nu te dan na doon naxe dugg néegub góor booba xam ngeen rek ni mu meloon booba ñu tiit di pat pati dee ni dañuy yóbbu ñu dugg néegub góor waaw ban demee ba jub dëkk ba nag comme worma ju mu wormaal sëriñ bi ni day yeew fas wi ak saret bi ñu dox egg ci dëkk bi waaw pour worma jun ko wormeel ñu yow saret bi ñu dox di dem kenn ku ne ñu jox la ay weccet man juróomi dërëm lan ma joxoon ni ma boo demee nga nuyoon ko nga nuyoo ko sëriñ bi waaw ba ma demee juróomi dërëm yooyu joxewuma ko dama koo lok nanguma ko joxe parce que booba xalaat naa jënd ci keesu miskit ak ak ak ak meew booba kees poti poti meew yi jar ñetti dërëm am na miskit di jar ñaari dërëm ak yooyu waaw man booba loolu lépp moo nekk sama xel bi ma demee nag maa ngi toog ci ëtt bi boo gisee man la metti mi ñu toog ci perang bi ci room gi xam nga room bi day am ay fel man may jàpp fel yi dóor rek di rey rek di rey rek ñeneen ñaa ngi ndax maa ci gën a nekk xale sama sëti papa sax booba ñoo ma mag sans papa booba ndeysaan ak taaluge bu mu amoon yal na yàlla yërëm ko tama sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yërmande ngeen ñaanal ko yërmande yal na ko yàlla yërëm góor gu baax la woon moom itam waaw léegi yàlla subhanahu wa taala dogalee ma ma ma toog ma ma ma may may rey fel yi rek di rey fel yi rek ndekete góor gi affaire bi naqari na bin pare nag ba pare mu kott juróomi dërëm yi bi nu génnee bay ñibbi nag ba tàggoo ba nu ñaanal nu ba nu ba nangul nu sunu njébbal ba ma génnee ci buntu kër ba nu génnee di dem fa saret ba nekk bin doxee ay ay fukki meetar ak noonu rek ma gestu rek góor gi toj sama nopp bi tën ni ma doomi toskare gàcce gi ma toog fi kilifa gi ngay rey ngay rey fel yi fel yi xéewal man koy man bàyyi fel yi fel di ma matt ma ma ma ki xéewal la xéewal la toj sam bi ma nee tell nag juróomi dërëm yi ni put mun ma lii man ko sëriñ bee ma ko may mu mu mu mu ma ma juróomi dërëm yi dugal sans poche waaye mbéj moomu nag moom duma ko fàtte mukk mukk te li ma ko yóbbee mooy rey ay fel rek yu nekkan ci bi xale yoo xam ne ay kilot yu gàtt lañu sol ñi gem gemb yëre yi matul fel yi sama tànk yaa ngi weex tal fel yi dima rey te ñemewu ma ko rey loolu daal souffrir na jot sama dugg ci tasawuf daal coono boobu moom ak métti boobu jour boobu moom yendoo naa ko sama ngaam mi riir bis bi yépp métti na ma nag ba tey waaw waaye jéggal naa ko ndax sama bàyyi te lu baax rek la bëggan ci man salaamaaleykum wa rahmatullah waaw Baye Maguette yow yow sa nag kat ñoo ngi la ciy masawoon nag jërë eh, yàlla la yàlla eh, jéggal te jéggal sa waajur woowu te jéggal mboolem jullit waa dama dégg ci sa audio bi repassé léegi nga wax ni maanaam sëriñ ba nga njëkk jébb yu ba mu faatoo dañ leen a miraas yow ñu féetale rakk ja waa eh, loolu loolu ci tasawuf la wala nu mu demee noonu parce que ay nit naka lañ leen di miraase rawatina ay taalibe loolu daal bëgg naa bëgg na maa xam ba xam daal nu mu demee noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilahi wasalaatu wasalaam laa man la nabiya baxda waaw El Hadj Omar loolu loolu kay waru laa jaaxal ci ci ci tasawuf tasawuf moom mooy sëriñ yi ma ataalibe yi ñooy seen alal taalibe yi maanaam ñooy ñooy ñooy jumtukaayu sëriñ yi bu doon ab usine ma ne ñooy mooy machine yi liggéey ñooy machine ya ndax euh, euh, sëriñ bépp boo xamante ni génn na àdduna coow la cay njëkk am problème bi njëkk am ca tarixa ba kër kër sëriñ yi ci tasawuf yépp mooy taalibe yee dem nañ jébbalu ji ca kee bàyyi nañu bàyyi nañu kële xilaafa gi moom la ñuy jox taaw ba koku mom duñ ko xëccio koku mom organiser nañ ko avant muy genn aduna moy khilafa gi kifa top moy mak mom koku ay at la mais problème benen ba ca des moy ñeneen taalibe ya nga xamante kenn fas na yene boob taalibe yépp yobulen bu ko defee daanaka bo ci ñi nga xamante ni honeste nan tey a doxal seen démocratie dañuy waxtaan sét ni ah ñi kët mom kee sa moo nañ dem jébbalu ji ci kele ndax neew na doole bu ko ñepp woné gënaaw kër ga man na man na dem man na dem man na soxé man na soxé ndax comme talibé ñoy bay tol yi ñoy joxé addi yi ñoy tabax kër yi ñoy défal sëriñ bi lépp ah sëriñ bu amul ta bu amul ay talibé eh, lan ngay doon même buñ déggé né yow yow am nga am nga ci ndono yi té amu ay talibé amu dara ndax ndax eh, bu dépp xaaliss la buñ la jox da naka nit ñi dañuy ñëw nga nga séddo wat ko ak ñom ta mais talibé yi nak moy matériel bi nga xam du fi moy moy jumtu kay moy trésorier yi ni ñu koy waxee matériel yi ngay liggé kon talibé dañ koy mirasalé buñ koy mel ñun dañ danoo meras ndax man sama papa moma ñew ci bopam ni ma ni ma sédde nañ la diw lañ la sédde diw lañ la sédde demal ci mom nga jébbulu jiwaat ci moom maa ma ñëwaat ci mom ci parcelle asini unité 5 bobu sax mom bam ko déggé mom mo jëm ñew ni ma ñu ne ko am nga taalube benen buñ la sédde mom mo ñew sax ñu wooma ni ma sëriñ bi ñew na né nga ñëw jébbulu nga ñëw jébbulu ni lañ mako waxé bobu man ma nga am ay 23 24 ans ñu ñu ñu wax ma lolu ni ma sëriñ ba kat kan la sëriñ comme sëriñ ba le faatu kin la sédde nee na nga ñëw nga yeeslu si waat ma ñëw yeeslu si waat waaw loolu am na. asalaamaaleykum wa rahmatulah Baye Maguette maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar waa man nag loolu jaaxal na ma ci parce que bu fekkee mbir mi yomal xiyaam moo taxoon ñuy jébbalu ci sëriñ bi wax dëgg yàlla bu la jiitoo yomal xiyaam may lan moo tax ngeen mi tànn keneen léegi yow boo demee fi ne nii masalan euh, alhamdulilah yow génn nga ci waaye bu fekkoon génnoo ci. ba euh, ñaar ñëpp faatu wala yoma xiyaam jot ñun ñëpp ñu dem yoma xiyaam léegi ci kan ngay féete ci ñoom ñaar parce que kan moo la ci war a lijjanti pour plaider la pour dugal aljana ndaxte bu fekkee da ngaa jébbalu ci kii jébbalu ci kii jébbalu ci kii mbaa doo dem ñu lay xëccoo loolu jar naa leeral de salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah El Hadj Omar waaw laaj boobu nga laaj de am na solo ndax man mii mos naa lee mos naa koo posé waaye dañ ma ko exemple biñ ma joxoon rek mooy dañ ma koo joxoon ci jigéen juy sëy ni jigéen juy sëy daal bu jëkkër ja génnee àdduna comme bu jëkkër ja génnee àdduna kam mujj am muy jëkkër kooka mooy jëkkëram bu bu yomal xayaamee kookee moo koy jëlaat moom lay doon noon daal lan ma ko waxe maanaam mbëbëstalal ma ko waaye wax dëgg yàlla lu xaw na am ay jeexi jaaxala na ci sama xel mi ndax man xam nga dama mos a sob tey tey tey tey tey gëstu ba daanañ ma ko wax daanañ may wax yow li ngay li ngay luñ bota dafa ëpp li ngay li ngay laaj dafa ëpp ba sama mag ndeysaan yàlla na yërëm ma yàlla na yàlla yërëm ko daana ma ko wax yow li ngay gëstoog li ngay laaj dafa ëpp ndax man damaa yàgg kure kuré waaw waaye man loolu wax dëgg yàlla lu ma lu ma lu ma jaaxaloon la waaw da waxoon nan may ne ma bu boobaa sax fay day gën a yokk ndax ñaar bu boobaa ñoo lay ñoo lay ñoom ngay am ñaar ngay am ñoo xamante ni kenn ku nekk day xëccoo naan maa lay dugal aljana waaw ñu koy xëccoo kenn ku ne di ko xëccoo loolu waxoon nañ ma ko ci ne ma bu boobaa yow ñaar ñëpp kenn ku ne day xëccoo naan maa lay dugal aljana waaw di la siyaare bu baax. alhamdulilah waa Mbaye Maguette euh, ñoo ngi sant bu baax kontaan nañ macha allah ci tont bi waaye loolu day moom loolu de xéewal la daa mel ni parce que dem ba yomal xiyaam ñu lay xëccoo kenn ku ne na maa koy dugal àjjana loolu moom jàpp naa ne ak xéewal la euh, bi ci topp mooy ndax Baye Maguette ndax Baye Maguette doon dund dëgg dëgg dëgg ak baay Fall ndax yow bu ma déggee ni nga waxee juróom-ñaari at ba nga ciy dugg juróom-ñaari at nga am kon dafa mel yow yàgg nga ci est ce que doon nga dund dëgg-dëgg ak Baye Fall ndax Baye Fall liñ ci xam mooy Baye Fall yi ñoom maanaam ponk lislaam moom duñ ci def dara ndax yow daan nga dund loolu wala déet waaleyka salaam wa rahmatullah El Hadj Omar Seck maa ngi lay siyaare bu baax ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonant bi alayhi wa wasalaam ñaanal sahabatul karam ridwanullahi alayhim ajmain waaw waaw daanaa ko dund de daanaa ko dund ndax dund gi moom ponk yee moom am na ay jamono amoon naa ponki majuli, julli ma dawu woor dawu dawu woor te saaga it wow, ko manon la <laughs> waaw waaw professeur la ci won ba danaka fa ma sax moom nañ ci doole waaye problème benen bi ci nek moy ay jamono nak don na bama deme bay tambali di yewu nak di baye xam nga mbir mi mom dank mai lay rucc ko rek ba jeex waaw ay jamono nak may may julli di neub di wor di ko ba amna ay jamono sax nan wor bon gis bu serign bi ñewé ñu dok ndax man ma ngi fàttaliku samay da nan wor ba leg da nan wor mais bun musaa ñew da leen di doglo wala ñu koy ñi di ko nëbb waaw bu ñuy lacc ay ndogol la la plupart fin corps gi nak lay doon ba mujj na sax dañuy wax nan talibé kadior talibé kadior euh, mom kenn mun leena té wor waye man dama daan wor di ko di julli di ko waaw lool lepp da ko doon def ba ay jamono nak bima démé makka comme nama leen ko waxe xam nga makka mom neexuta neub ndax moom senegal moom xam nga ni kon dégg na dem nga màkk alaaji di day jolli alaaji di day jolli a ah, ta ta ba pare aussi a ah, xam nga dem màkk moom ab avion bu naawee ta nëbb comme ni ma koy waxe avion moom ca kaw lay nekk julli nag ci biirum néeg nga koy defe waaye màkka moom da ngay wàcc ñëpp di ko dégg nga dem bi ma demee màkka daal ba ma ñëwee lañ ma dàq lañ ma dàq moom waaw daal ni ma yoon wi du yoonu julli du yoonu woor du yoonu aj màkk yoonu ñàq joxe la yoonu ñàq joxe la booy joxe yaa ngi dem boo joxeetul taxaw nga booy laaj dëpp nga te man moom fasatuma yéene di liggéey di jox kenn mu toog te ko kooku duma ko defal kenn ku ko yaakaar xar suuf si dugg ci. asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Maguette euh, ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar waaye man damaa jàpp ni yow euh, xëy na danga ngaa xamutoon yoon wi dëgg-dëgg ndax euh, yoon wu mel noonu nga xamante ni macha allah neex lool maanaam nit koo xamante ni doo julli doo woor doo def dara. ba pare te boo dee ñu lay xëccoo ci aljana kenn ku ne na maa koy dugal loolu wax dëgg nag moom est-ce que yow est-ce que yow euh, dëgg-dëgg yow euh, yoon wi yoon wi xam nga ko maanaam waxuma ma réerandoo yi nga xamante ne dañuy dugg ci yoon yi te xamuñu ko mais yow est que euh, téere yi nekk ci yoon yi parce que buñ xoolee yoonu Baye Fall mu ngi nekk ci yoonu Mouride ndax seen téere yi ndax xam nga ci dara ndax. ndax yew woon nga ci daal ndax doo ci woon am ma riirandoo moo xamante nii rek dangaa riir dugg fe ba ci ak nga riir génn ci asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleyka salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala laaj nga laaj bu am solo de waaw beneen bi ci topp mooy li nga li nga wax ni neex na effectivement neex na waaye nag yàlla subhanahu wa taala dafa waxoon ne xul aatoo burhanakum in kuntum saadiqin burhan yooyu nag laa amut indi leen lay bu ngeen lay ndax lay ken musuma koo mën a tegal ndax yàlla subhanahu wa taala la mu digle daf koo jaral mu wut ponkol mu toll ni jibril ponkol mu toll ni jibril jox ko ko mu wut téere bu rëy bu tol ni alxuraan boo xam ne lottal na ñépp ci kaw suuf mu jox leen ko samp ci am dënd ni ko ko mën na nga ñëw def ko ba digg ca wenn saar ni ko ko mën na indi wenn saar woo leen ku ngeen yaakaar woo leen seeni dimbalaa kon dafa samp ndënd moom yàlla li muy rëy ak ngand lépp daawuñu ko samp ndëndëm wut malakum mu rëy mu tolni jibril mu jox ko téré bu rëy wut yonent bo xamanteni ni mooy nabihiina wa imamil mursalina muy salawatullahi wa salaamuhu alayhi yonni ko jox ko téré bobu te munul bind munul jang mu fexel ko bamu ko koy leeralal ko nit ñi bamu mu leer nañ ci bop nit ñi xamal nu aljana xamal nu sawara mais ñeneen ñi ca dess dañoo takkan suñuy pas-pas foofu rek mais nunguun ko leeral ta bo laaje ñun la da ngay diingat bo laaje ñun la da ngay critiquer do laaj da ngay seug di dem rek lolu moma ci jaxal benen bi ci top moy laaju jang téré waaw waaw téré dama ko jang ba maîtriser ko ndax téré ci ne moy yima la ci mën limal rek moy tasawudu sixaar tasawudu suban jawru nafis munawiru sudur, mulay mu sudur, mu niran sudóor jinan, ak nahju téré yooyu yépp dama ko jang ba maîtriser ko ba koy tari diko woy téré yooyu yépp jang na len dama leena jang ben par ben jang mu wër jang ko jangale ko kon xam nga ni kon xam naa ko waaw loolu lu leer la te amoon ci ay privilèges yu wóor na jiite woon ci ay mbolo waaw ba fii buñ fi musaan ñëw ma même xaa caa caatum sëriñ tuba muy maam sëñ mor maam mor maam sëñ mortala bu ñëwoon fii sama oto la daan dugg ma koy dawalal maam mor doomam daane ñëw fii ma koy dawalal ci sama oto waaw ñu jox ma ko ma koy dawalal kon xam nga ne xamoon naa leen bu baax a baax baax di ñaanal sëñ mortala mu tëdd yàlla na yàlla tàbbal ko aljanna yàlla na yàlla yërëm ko Alhamdulillah, Baye Maguette ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf waa léegi yow kon maanaam lan moo la ca génne ndax bi nga demee màkka parce que dégg naa ngay dangaa dem màkka ndax yow dangaa dem màkka léegi gis naar yi rek ñu convaincre la wala ndax ñu bari ci euh, nit ñi daanaka bu ñu gisee naar yi rek dañuy mel dañoo xaw am complexe ci suñ mag ñi am Sénégal bu ko defee dañuy daal di topp diiney naar yi ndax yow loolu moo la génn ci euh, Baye Fall gi wala lan moo lan daal lan moo la tax génn daal asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala man la nabiyya ba'd salaamualeykum El Hadj Omar sek ma ngi lay siaré bu baax waaw wax deug yalla de bi may waja dem makkah jamono boba. ndax boba ak léegi mat na fukki at ak ben fukki at ak ñaar presque boba tambali won na nak di dengi dengi ndax boba jamono bobu téré yoyu ma jang la jang xana risala la ci waaw ah, ba ginnaaw ba nag ba ma demee màkka wax dëgg yàlla gis naari di jàng alxuraan bu ñuy jàng alxuraan ñuy jooy jooy yi metti lool ca kaaba ga nit ñuy jooy affaire bi jaaxal ma mu metti ma tama xam ni ñii lii ñuy jooy lii ñuy jooy dañoo xam la ñuy firi ba ma ñëwee ba ma ñëwee laa ne man damay damay dinaa jàng alxuraan man dinaa fexe ba xam lu yàllay wax ci alxuraan ba ma ña ma doon jàngal téere yooyu ba ma leen waxee keroog ca jëkk amee problème ak ñoom ñun ma téere alxuraan kenn du ko firi ndax sëñ bi daawu ko firi koku lolou ken duko def ba buñ daan jang téré sax buñ ëgsee ci aaya bu nu ay bu nu firi dañuy wax ah lii de man duma ko firi mbind mi mbind mi de duma ko firi mbind mi lañ ko tuddé sax booba mbind mi ñul ci biir duñ ko firi waaw légui bama ñëwé tambalé wax leen lolou ñu ni ma ah alcorane ken duko firi man leen man dina ko firi yalla dogal ma amon ay disque yu ne ben sama ben rak indil mako moy moy Alioune Sall ma tambali ko am ci ben disque ba mujj nak ma jël Ibrahima Khalil Lo Ibrahima Xaliloo yal na yàlla dolli ko aw yu bare bare bare bare yàlla na ko fi yàlla yàggal kooku daal moo ma dajji wekki ma ba ma set wicc nag ndax ba ma jëkkee ak si ci suuratu baqara ba muy wax wa istabaraxol lazina tubiu jooju ba ma ko xoolee ma xam ne ah ndekk ñi ni topp ëllëg dañuy denc ñoom dañuy denc dañuy de problème bi dinañ ko am ma diglu affaire boobu mu tàmbali dérangé na ma nag mais ma gën a sëgg ndax booba am na lu des ci man ci tasawuf ma naan kii day diingat may continuer xuus di dem rek di xuus di dem nag ba yàlla def nag ma egg su ma egg suuratu Ibrahima ba suuratu Ibrahima ci aaya 21 fa yàlla subhanahu wa taala di wax wa barasoo lillahi jamia فقال ضعفاه للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم معنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لأديناكم سواء علينا أجزحنا أم صبرنا ما لنا من معيس آه مفير ما آية بابا من يكون آه وبرسول الله بون جيني فني جيني آه في فوفو دي جيني في تب أوتيل أمو كي باميلي رك جميعا نيب ma xalaat ma xam ni ñëpp la wax jamee yàlla moom ay waxam lépp lay doon waaw ñëpp la fa xaala duha faaw ñi néew doole ma ni ah ñii de xanaa mooy ñun ñu niy noggate li lésina stakbaroo mu ni ñuy ngand ngandlu ma ni ñii ñooy sëriñ yi noonu laa ko doon dégge man noonu la ma affaire bi doon dikke inna kunna lakum taba yéen de yéen lañ doon topp fa al antum muxnuuna anna min azabillahi min shay'in a ah, xanaa di ngeen ñu musal ci mbugalum yàlla mi tuuti de ñooñu tontu leen ni leen xaalu law adanallahu la adaynaakum bu nu jubal jubal leen ma nit ñi lii la ñuy wax sawaahun alayna fii ñoo fi ñëm te ñoon lañ doon bayal ay tool ajasir naa am sabar naa bu ngeen jabbutoo ak bu ngeen muñoo maa la naa min maa ngi affaire bi nag tàmbali na ak xaw xam nga rek Ibrahima noonu muy taawiile ak ni muy indi aayi ndeysaan su ki mu waxoon moo def tafsir bi sax génn na àdduna temps yi may may baamtu affaire bi di ko baamtu affaire bi di ma gën di wekki ma xam ni lii yàlla wax ci alxuraan lii film la bu mu nu lancement ko gis wallahi al azim laa ko gisee ca laa nag tàmbali nag gën a xuus nag ba yàlla dogal ma jeexal alquran waaw calaa laa génn ci lépp nag man leen bana man moom fi mu ne masla dara lépp moom comme dàq nañ ma boole ma ci gën na maa sawar ma génn ca mbir ma ba set ca wecc màkka daal ak alquran moo ma génne ca la ma nekkan. alhamdulilah Baye Maguette ko ñoo ngi lay ziar baax a baax waaw kon euh, bu ma déggee wax ji kon dafa mel ni yoon wali moom ba nga ca nekkee moom mosoo xam ay alquran loolu lay nural ci wërs ci sa wax ji léegi ndax loolu wax jooju ñu wax noonu ndax dañ koy wax ngir euh, maanaam bañ nit ñi xam alquran wala wala dafay dafa nekk charte ci yoon bi daal loolu bëgg nañ ko nga leeral ñu ko daal salaamaaleykum wa rahmatullah waaleyka salaam wa rahmatullah alaaji Omar Seck maa ngi lay siyaare bu baax ginnaaw bu ma jullee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw duma ni day aw sart la ci yoon wi ndax yoon yooyu wax dëgg yàlla xawma seeni sart aw sart la loo xam ne lépp lu nit wax daal mu jub wala mu neex leen loola ci yoon wi nga bokk lépp loo xamante ne day wàññi ak seen jox leen ak laaj laaj daal ci bokkut laaj bokkut ci sarti yoon yooyu moom doo laaj da ngay jëf rek mais ay sart daal xawma ko ci waaw alxora alxora daanaa jàng nag ci seen bind yooyu daanaa ci jàng booba moom daanaa ci góorgóorlu di ci jàng waaye benn aaya alxuraan ak benn hadis boo xamante ne mos naa koo xam wala ma xàmmee sax ab aaya akub hadis xàmmeewu moon sax lan mooy aaya alxuraan jàngoon naa ko pare waaye ab xaaya wax dëgg yàlla ab xaaya xawma woon mooy lan dama daan dégg rek ñu koy wax mais musta leer ci sama bopp xaw moo ne alxuraan day am ay ay ay ay ay taxawukaay ay yooyoog ay maanaam ay aaya ban la naan saar nangam nangame sa aayal loolu moom musuñ ma cee foo musuma cee ree ab hadis moom kooku moom taxul woon sax may wax moom kooku moom moom wax dëgg yàlla ginnaaw bi laa koy soog a xam xàmmee ko waaye xaw woon luy hadis damaa defoon ne ku bari wax rek ñu naan la yaa ngi hadis waaw ak bu dee xaala moom am firi woon lañ ko daan firee yaa ngi may xaani koy waxal mun la yaa ngi may xaani mais sart ci yoon woowu dal man xawmo won seeni sart lu nuy bañ ak lu nuy nangu dal man xawmako xamna ni dal mom genn ci mom genn ci mom tremblement de terre la mom tremblement de lu ne daal nangu nako way genn gi dal moy sart gi gëna a diis moom kooku moom mooy li nga xamni mom soldat yépp ay jóg nag jël seeni ngannaay waaw dila siyaré bu baax alhamdulilah Baye Maguette euh, ñu ngi lay sant bu baaxa baax wax dëgg yàlla ci oyof geek euh, disponibilité bi euh, ginaaw bi nga genné ci yoon woowu yow bi nga génnee ci tasawuf maanaam yenn jafe-jafe nga jànkonteel ndax gis nañ ni euh, ci li ñu li ñu fekkee ñun képp koo xamante ni génn nga ci yoon woowu du ñàkk nga am ay problème boo dee gone nekk sa kër bàyyi boo moytul dañ lay génne bu fekkee tamit euh, mag nga waaye euh, say waajur a yor wala sa am-am demewul noonu boo moytul dañ la santage wala léeg ay liggéey ak ay njabar lu ne dana dana dal legi yow yi lan nga jankontel dal nga genné assalamu alaykum wa rahmatullah alayka salaam wa rahmatullah elage omar ginaaw bu nuyu jullee ci yonante bi ali salatu wasalaam ñaanal sahabatul kiram sahabatul kiram ñu ngi lay siyaare bu baax waaw ginaaw bu mu genné waaw comme daanaka comme ni ñepp genné rek ni ñepp genné ni may mel bu waye ya nak mom genn gi mom ba ba ma genné doon jot ay menace jot ay menace lenn ñu ne la koy wax naan dina torox dina torox ak nangam ak nangam waye man nak xam nga yalla da dof yow kuma xam-xam na ne man am pank la am pank la ta man ñu bari ñu xam ma dañ nan dañ nan dañ nan bay magal ku koy ñaanal nang ko ñaanal yalla bañ ko xeeñ ca xéer fet ci sangara ndax man buma ma doonu solaara ma fekk damay mandi luma nek dama koy bëgg ndax la ci jëk moy man lay yu ma jëk na yor moy sans bay comme ab qadir la won ni fa ñuk qadir ga dem nek a nek ab bay fal ah kon na sans bay lamu leble lañ ko fay ci man manit lam ma dugalan mané ko fa ñukku bayil ko ko fa té ngom samay magit lay woowu la jaara na ñoom départ bi nak amon na ci ñom problème ndax ay at embargo nañ mako duñ ma tudd duñ wax ak man duñ wax ci man dara manit ma nopi waaye nak yalla subhanahu wa taala dima jappalé dima jappalé may ma lu may ndax sunna mom ku ñuy dundal pour nga dund ko do yomb ku ñuy dundal pour nga dund sunna do yomb waaye bu la yalla dimbalé may la nga am xel nga nango liggéey nango jaamu yalla boole ci nango jaamu ya boole boleh kita dundal sa bop di nga manu dundu dund sunna yàlla dogal ñu ko ne ci loolu ba yàlla def na nak jàmm na ci deug deug sant na samay mag yep ak samay mbokk ndax ñoom ñépp ñoom ñépp ñépp fekk si nañ ma feeñalu gunu ko nag feeñalunu ko waye ñoom ñépp xamal nan ni ma li nga nek moy deug dañ ci mënta genn ndax fit wi nga am ba genn ci ñoom ñi moon ko ndax ñu ci ëpp njabar gi do nga lañ ci ragal njabar gi lañ ci ragal lol lañ ci xalaat ndax dañ leen di menace ku ci génn di nga torox nangam ak nangam ndax lii may wax tey jii defoon naa ni ku ko amoon naa pas-pasu ku ko wax da ngay dee ci guddi gi da ngay tëdd ci sab lal sans audience ñu dóor la wéet moo boo tëddee da ngay dee ci guddi gi sans ñu lal la ndax dama defoon ni ñooñu ku leen lal dee parce boobu lañ ñu jëkk na gëmloo bon ginnaaw bi loolu yàlla dogalee loolu nag ay jamono mais fin ne moom ne moom dëgg bu jëkkoon dañ ma daan danget di ma wax may koy dégg da ngaa weddi da nga bayyi da nga murtat mais légui dañu ñom ñoy neub seeni pas-pas ci sama kanam ñaké ca desu kus néew ñoo koy nëbb mbokk nak mom muy ñama bokkal baye ak sama jarbaat ak sama ñepp jubo na ñoog man légui ñepp jubo na ñoog man ñeneen yi ci dess nak nee ma ñu ngi maslaa ndax affaire bi ñi génné ko mom yomb ñemewu ko ñi ñimé bari bariwut ñi ñimé bari waaw mais ñom wax dëgg yalla yalla dogal na dal ñi ci des ay benn benn amna ci ay benn benn yu ci des amna ño xamanteni génn nañ ci mais ñu ngi ñu ngi maslaa fi ne mom kuma ki tudd ku ci demone ci ñom mom boma tuddé légui ñom ñu mom lo yow lolu mom ya mais nak départ bi mom metti won na metti way wo xamni foko tak passé ni dekk bi ma dekk nak mom mom ñeppama ba sénégalais yi fi nekk ba ay benn benn laa fi xam yu nekk ca beneen tarixa ba mais du tarixa ba ma nekkan kenn du ñëw sama kër ku ci musaan ñëw sama kër buñ la wooyee téléphone boo nekkee fii doo ni yaa ngi doo ni maa kër màgget mbay da ngay wuyu téléphone wax ba pare waaw ay jamono ñu naan leen bu leen dem ci moom da leen di déwee te leen di da leen di da leen di jàddal loolu leen leen daan wax waaye daal fi ne moom alhamdulilah. alhamdulilah Baye Maguette ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar waa groupe bi yëpp waaw gannaaw boo génnee yow ci yoonu tasawuf euh, nga ni li nga nekk pour yow xéwal la ba tax nga ñëw di ko waxtaane loolu mooy lan maanaam li nga nekk fi ne nii mooy lan ak naka la nekkee xéwal loolu daal bëgg nañ tamit nga leeral ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleyka salaam wa rahmatullah waa li ma nekk xéewal la moom wa in taxudu nicmatallahi laa tuxsuha xéewalug yàlla gi moom buñ ko bëggee lim moom mënuñu koo takk amuñu ay ay nu ardoise bu mën a jël numéro yëpp boo ko doon bind ci miir yi miir yëpp di ko def ay zéro te bala ngaa def euh, ndax milliar yi milliards boo ko bëggee génne ndax la ci jëkk moom mooy noppalu naa kenn doot jëndatuma nagu màggal jëndatuma nagu gàmm joxeetuma deux cent mille ak trois cent yi gàmm ak yow ga yow yow ah alors dé dé dé nga maam nekkatuma ci xewee cant ya ñuy def ak yépp def naa déclaration ba ci samay mbokk ni leen lii ngeen nekk respecté naa leen ko waaye nag démocratie bi na dox respecté leen li ma nekk man lii ngeen nekk lii tariixa bi ngeen nekk ak bi ma nekk bokkunu yéen lii ngeen gëm man tariixa bi ma nekk da koo weddi ndax yéen da ngeen ma weddi ndax bu ngeen ma weddiwul woon ñëw ci man man dama leen a weddi lii ngeen nekk bu ma ci nekkee sama pas-pas yàqu du ma gàmm du ma màggal du ma tam xarit du ma def ay cant yi ñuy def du ma dajaloo di jàng ay ay di wàcce ay kaamil duma ko def ndax yoon wi ma nekk muy sunna da koy tere ndax mbir la moo xamante ne bu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñëwoon dañ ko koy présenté dañ ko koy présenté te lu ñuy présenté yonante bi alayhi salaatu wasalaam loolu bokkul ci diine premièrement loolu lépp économie la boo xam ne xam naa ne lu mat ay million yoo xamante ne par at am naa million lu ëpp million CFA boo xam ne moom xam naa ni yàqatuma ko koku mom gis nako ko ci ak yokko ci sama bop go xamni defatuma ko perdeutuma sama temps waaw khat khat lootoo suma keur ndax bis bu nek ganu sëriñ ñi fi dare ñun ñepp ñuy tok ci suuf mu tok ci kaw sunu keur yi khat suñu khat ndax ganu mom mo gan moo aw jën ci kër yam bu passé ñetti fon rek tambulé nepp waw te ñewatuñ ci man dàquma kenn do ñew ñew gis ma may rek ñu ak ak son ci jang ñu xamni lema yewu ñu dem biñu démé nak wër di tas di yak sama bernan lemu koku day murtat Lemu murtat ndax mi ngi jàng mi ngi jàng wallahi azim néewuma kenn bu fi ñëw lool loolu ma waaye sant naa yàlla bu baax daal ndax gàmmootuma tasaatutuma sama xaalis perderetuma ta ndax dimanche bu nekk daanaa ñàkk vingt euros bu ma demee daayira ndax si kenn ku ne dugal sëb sëriñ ci sam néeg woo ma ne ma kaay siyaare ko dama am gan ma joxe cinq euros cinq euros presque quatre mille francs CFA la boo ko defee ñeenti yoon sa vingt mille dimanche bu nekk rek sama vingt mille sama sama nga xam ne vingt boo ko xoolee dix sept mille francs CFA par dana ko ñak te defut min sama poste bi tok waaw di siaré bu baax di la ñaanal jàmm alaykum wa rahmatullah wa Baye Maguette ñoo ngi lay nuyu baax di ziar waye yow ne nga da nga génn ci yoon bi li nga wax ni d'accord xayna na ay dematu ay gamo ki màggal ak yoy waye teewul ba legi yéen da ngeen am ay sëriñ ndax yow ya fi wax legi ni Ibrahima Khalil Lo xafidahullah nee nga yow mom ci mom nga jànge manam ci mom nga déggé tafsir alquran ba tax nga top yoon ya, moom nekk léegi loolu naka naka naka nga ñu ko mën expliquer da naka ngeen mën a contrer manam bañ nit ñi am sëriñ bu bari yeen ngeen di am ay sëriñ alaykum wa rahmatullah alayka salaam wa rahmatullah El Hadj Omar sek ñong lay ñong lay siyaare bu baax di lay ñaanal jam ginaaw bu ñu jullé ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw loolu nga wax de eh, loolu nga wax de deug la loolu nga xet laaj bu am solo la bu mat a leeral nun terewunu nit am ay sëriñ de déedéet xam nga lu nuy bañ nit mu am benn sëriñ benn sëriñ benn sëriñ moo walaabul ndax benn sëriñ mooy kii dong lay diglu kii dong lay diglu nit ak ki ñuy jënd ay jaam mooy am benn sang ab jaam moom kenn dong moo ko benn la war a doon muy jaamu yàlla mais ab sëriñ bu li ñuy bañ nga am benn man bi ma nekk ba ma nekkee fii gis ku may jàngal dama fay dem ku ma dégg fii ngay boroomu xam-xam mi ngi fi ndax du du ibrahima khalil lo mom rek moy sama serigne oustaz omar tambidu ca ma nga ci espagne sama serigne la ah? ah abu abu mokhtar ma nga ci ma nga ma nga fele ci ci bergamo sama serigne la sama sama sama serigne la ben muxtar sama serigne la ah yow moomu bu ma gisee loo xamante ni nga ko ci l'islam dama koy jël di ci jang boo ma gisee téere ñun dañu bëgg ñu am nit am serigne yu bari nak yu bari ko mais li bañ nga ni kenn dong ngay diglu te yow dula la ba dula jangal la man ñooñu ànd na ak ñoom at yoy yep ak sadd jangaluñ ma ko waxuluma ak lif ak sadd dugulun ko ci sama bop bi musuñu ma leralal men masalam diine téere sëriñ yoy téere sëriñ yi ma jang du ñoom ñoo ma ko jàngal yi ma jang ci seen tarixa bi est ce que ñoom sax man nañ ko jang est ce que nañ ko man ni ma ko dégg loolu sax benen question la bo xamne man bu meun bis bu ma tassé ñoom dina bu ma ko ma ko la ko laaj est ce que sax yi nañ ko waaw xam nañ li muy firi waaw loolu mooy problème man damaa bëgg nit ñi am ay sëriñ yu bari foo dem ko la tane ci ab xam-xam nga koy laaj fas alo ahla zikri in kuntum la taalamuun laaj leen borom xam-xam borom ahla zikri mooy ñan mooy sëriñ kooku farata la bu yàlla digle ci alquran kenn du tere ab sëriñ yàlla digle na ko ci alquran mais da nga ci du wut benn waaw waaw bul ci benn koo gis mu tane la ci xam-xam boo toxoo ci dëkk sàngam demal dëkk sàngam mais ki nekk ma nekk fii ma mooy sama sëriñ loolu rek daa doy lu ma xamal wala daf may tar daf may tarbiye wala daf may tarxiye ci whatsapp wala daf di ci yéegal wala mooy tarbiye ci groupe whatsapp bi ah tontu ma laaj boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah Baye Maguette wax dëgg yàlla sant nañ la kontaan nañ ci yow lool. xam naa li ma gisee waxtu yi dafa mel ni léegi tisbaar jot léegi tàkkusaan jot fii kon te téye nañ la lu yàgg xam naa kon dañuy ñëw rek Eh, waa nga nga nga sànni sa kàddu gu mujj lan ngay dénk lan ngay dénk ñi nga xamante ni eh, dañuy door a dugg ci na doon ay ndaw nekk ci ay ay jafe-jafe ak ñi nga xamante ni xëy na ñoo ngi dégg ñoo ngi dégg njàngale mu leer naññ muy leer ci seen bopp waaye ñiwu ñoo bàyyi fa ñu nekk lu ñooñu daal bëgg naa nga wax lan nga leen di dénk ginnaaw bi incha allah dinañ ubbi groupe bi képp koo xamante ni am na lu mu bëgg a eh, laaj Baye Maguette rek bu fekkee Baye Maguette disponible mu wax bu ko defee incha allah bu julee ba pare wala mm, waaw bu julee pare rek incha allah jéem a tontu ci laaj yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaam wa rahmatullahi waaw mbokk yi man de li may dénk ñëpp di ko dénk saa bopp. mooy ñu gën a góorgóorlu ci jàng. waaw képp koo xamante ne daal bëgg ngaa bëgg ngaa dund suna lu nga xamante ne ci la yonant bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon da ngay jàng la suñu maam ma waxoon ci téere mi rek ndax boo ñamee njàng doo ko bàyyi ndax dañu woon xaasoo làq nañu alxalaawata neex ga minal masaaxi ca mos ga dañoo ñam saaba yi dañoo ñamoon jàng ñam yonent bi rek mu neex ñu nur waaw da lañ ko defoon mooy xam-xam ak ànd nekk benn ak dëppoo kon nag képp koo xamante ni bëgg ngaa dund sunna dinga nga muñ te nga góor góor it nag nangoo liggéey nangoo liggéey ndax ku liggéey ku jàng da ngay xam fa ngay teg sa tànk ku liggéey da ngay mënal sa bopp ndax lii sama benn jarbaat mos na ma koo wax mos na ma ne ndijaay dafa am ñett yu yàlla def ci yow te ñett yi ku ko yàlla def ci yow war ngaa sant yàlla sama jarbaat moo ma ko wax ni may yàlla may na la nga jàngi nga ba am ay lay téyeku yor say lay liggéey nga it ba mënal sa bopp ba mën a yor sa bopp li ci topp mooy am nga aw fit woo xamante ni ku ko am ci mbokk gi amul fit wi il faut nga jël sa responsabilité tey nag dinaay dénk waa Sénégal di ko wax ñëpp mu koy wax mbokk yëpp ñu xam ne lii nu nekk noonu aw yoon la ni nit ñi sose seeni tarixa ñu xam ni démocratie nañ ko def démocratie te lii mooy li fi njëkkoon te moo fi mujj moo fi mujj ndax jamono yi bala passé sama benn jigéen ñëw woo na fii ni ma dañoo ñëw di ko kalaame naan ko sa sa mag gi sa mag gi da moom ma ngay mi ngi day wax ay def ay audio rek di wax na wax tan léegi dañoo bëgg ngay wax ak mbokk yi te bàyyi nit ñi ma ne ko duma ma wax ak mbokk yi doo nga yemale ko ci ndax ñii lii nu woote ba samay mbokk dugg ci woowuñu ci woowuñu leen ci ñoom dong woowuñu ci seeni doom dong ak seeni jabar dañ cee woo sunuy mbokk nu lii nekk nan nu ko nangul ta xamni ñom loolu ñu nekk nonu ñu ko gëme nun weddi ko moy suñu pas-pas dañu ko weddi nun dañu gëmut ben tariixa gëmunu ben tariixa bu dul sunna si yonante bi ali salatu ak alquran yi ji bu nu ko gëmon tok ca te ñomit bu nu ci ñun nan doxal demokrasi mané ko nak xam nga lima la bëgg denk moy len téré ma wax ji ak bañ ma wax moy nga ni tiijaan bu len wasifati bu len werd ni mouride bu len jangati bu len magalati ñun bu nu noppee rek ba sunu tarixe bi banan ko muy muy sunna bi woote ci dinañ ci leeral mbirum alxuraan ji ak sunna si yonante bi alayhi salaatu wasalaam luñ ci xam dinañ ko leeral nu nangul nu ko te xam ne mooy sunu pas-pas te day jëm kanam te mi jëm kanam man daal loolu laay dénk sans bopp di ko dénk ndaw ñi di ko dénk ñëpp ñu gën a góor góor góorgóorlu ci jàng lu mu tuuti tuuti bu doon benn aaye nga xam ko par bis wala benn hadis nga xam ko par bis bu ko xeeb wala nga mën a prononcer benn benn araf loolu ba tey baax na kii def abajada na def ja abajada ki ci tollu ci lool ki tollu ci jàng hadis jàng hadis ki tollu ci jàng alquran jàng alquran te xam ni munta nekk waaw loolu munta nekk di dox te jàngoo munta am sinon dan lay exploiter te diine ñu xam ne du lu nuy ambulant ci mbedd mi Sénégal quatre vingt dix pour cent yi ni jaamoo yàlla quatre vingt dix neuf pour cent yi dañ leen ko ambilan ci mbedd mi du lu nu tiim ci téere jàng ko du lu nu gis ci alxuraan du lu nu gis ci sunna dañ leen ko àmbalee ci àdd bi benn paa nee na génn góor nee na mag mu baax nee na loolu du diine du ab delluwaay diine ñu mag ñun ñëpp mag sunuy maami maami maami maam mag sunu maami sëriñ yi ak ñëpp diine leen mag junni at ak ñeenti téeméer lislaam am na ko Sénégal ba fa dugg ak léegi junni at nangam la kon amu fa moroom diine du benn paadu ab delluwaay nan ko jàng ci téere yi waaw di siyaare di ñaanal jàmm di leen jéggulu siyaare ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla wéral nu te wéral suñu pas-pas bi te dëppale ko ak pas-pas ba nga xam ne moom la yonante bi alayhi salaatu wasalaam façon yaroon ci sahabatul kiram jàngaloon ko sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ndax mooy ba wér mooy original bi beneen pas bu mu doon bu ëllëgee dañ koy présenté yonante bi te yonante bi luñ kanamu yàlla wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baad